sëñ Sam Seck Ridial yore kàddu njabootu Cheikh Ridial Seck Gëm Bamba ah, tey jii nag ñu ñëw doon leeral Sénégal gépp rek ne leen jéeye jooju ngeen dégg ne amoon na ci màggalu Hissina Maram gi jàll di kero dimanche can ci doon wax ne dafa am xewe biir kër sëñ Ridial bay wax ne am na sax taalibeem boo xam ne moom moo ko def ñu bëgg a leeral àdduna yëpp rek ne leen eh, kenn rey sëñ Rijaal xamu ko du ab taalibeem ñi ko rey sëñ Rijaal xamu leen dun ay taalibeem reyewul leen it ca biir kër ga ca wetu kër ga lan leen reye nag naam ca mbedd ma waaye reyewul leen ca biir kër ga di wax nag senegal gépp ne leen ñi nga xam ne ñooy ñooy yor ay kii di daanu ñu tudde leen ay daanu maan ñooñu lu naqari sëñ Rijaal la nem naqari yoonu mu murit gépp àndut ñoom amu ci ab taalibe te ku ko déggal loolu doo ko def ndax programme bu sëñ Rijaal di def bu mu mën a doon dina ma yebal ma dem ci commanda bu dee gerle la damay dem ci commanda Sadio mi ngi may dégg bu dee Touba damay dem ci commissaire janatu pour avertir leen ne leen ñooñu buñ fa ñëwee seen engagement lay doon loon fa def seen engagement la ñun woowun leen ñun suñu taalibe la ñuy woo te suñu talu talunu loolu ñoom ña ngi koy sikkar ba ak lan leen sant ci jaam xeetu jaamu yàlla waaye ñooñu moom wax dëgg yàlla amuñu ci ñoom benn responsabilité ñi rey ñun xamuñu leen wan nan leen bi ñu leen jàppee mais ñun xamuñu leen man xawma ci kenn bi ma leen laajee sax dañ ne ñoom Mbàkke lan dëkk 23h lan fa ñëw xam nga taalibe bu bokk ci kër gi moom doo bàyyi ba 23h ngay doog a màggal si kon loolu firnde ci ne ñu xamul leen loolu rek la moom maanaam xamu amu ci ab taalibe xamu ci kenn ay taalibe moom tere na leen ñu ñàkk fayda yooyu doo leen seen ci ak ñàkk fayda wala yu mel noonu ñuy dox liggéeyal sëñ bi ak sikkatru yàlla loolu rek la ta la ak rijaal xam ñun xam ñëpp ñun xam na ne loolu rek lan xam la leen lu ngeen dégg ci ñàkk fayda nag Sëriñ Diallo doxu ci waa kanam doxuñu ci loolu lan la ñëwoon di ko leeral. ñeent ñoo ñu téye police ñu ne kenn ci taalibi sëñ bi moo daanu après dóor ko bi mu ko dóoree ñoom dañ ko jël pour sauver ko yóbbu ko ci la dese. foofu lañ juumee ki daanu du taalibu sëñ bi sëñ bi xamu ko. mais am na ko daanu. mais du bi sëñ bi sëñ bi xamu ko ñooñu programme bu am dañuy dañuy ñëw lii ma lay wax nii waa Darou Salaam xam nañu dara Darou Salaam gii màggal gi ñeent fa wa wa yàlla seer na ñun xamuñu ko kii daanu ñun xamuñu maanaam xale bi faatu ñun xamuñu ko ka daanu woon ba xale bi xamuñu ko ñun xamuñu ci ci ñooñu. mais bari nañ Daaru te kenn tudd leen publiquement lan moo tax ngeen jugé nécessaire ñoom démentir bi ko parce que loolu maanaam mu ngi xewee ci mbeddu sareet yi mbeddu sareet yi ak kër Rijaal benn la te ku ne xam na ne màggal Daaru Xudoos xëy si maaram bu paasee kër si Moustapha Mbacke Mohamed kër Sëriñ Rijaal mooy fi fi ëpp doole ci maanaam wàllu mbooloo loolu la yàlla dogal léegi nag loolu moo tax nag ca géej ji mi ngi xewee ci mbeddu sare ji mbeddu sare ji koñ kër si ngir yàlla malgré que bokkut ak nag baas ba ak màggal gaak fa mu xew woon waaye ci koñu kër gi la loolu moo tax bu ne am na benn sëriñ te démb léegi ñuy dégg ay rimaan benn sëriñ sëñ rijaal moom di xamle ni sëriñ boobu ñu wax moom du moom amul taalibe buy daanu tere na ko waa këram waa këram duñ ko def waa këram liggéey lan xam ak jaamu yàlla ak sa kër tur yàlla ñi koy defit metti na leen nag amul genn màggal guy xew te du ma yebal ci commissaire wala commandant pour wan leen leen ñu fa ñëw seen engagement la woowut kenn ci ñooñu ndax xamu leen amu ci ab taalibe bi sëriñ Sam Sekri Diall yore kàddu njabootu maam Seeri Diall gépp